ko yàlla taxaw ndax am na at moo xam ko sama yéene lu ma wuute ko wa taala maa toog monsieur le maire kii wax ko sëriñ bi sama yéene ci tund bi ak dëkk bi fexe ba courant am te ndox mi am suñu nii moo taxaw ni ko loola de dina jàppale li nga wax boo ci dëggoo rek bu soobee yàlla dana jàppale. kon nag waxoon na ko ci sëriñ bi dogal ko ci am na mu def ko loolu ngay doog a wax nag sëriñ Baye bi sëriñ bi wax waaw bu ñu mënee ne day laaj dee xam nga lu yàqu am ñett yi rek ko yàq bul ko toog gënu la bul ko toog da lay nax fayu am bu yàqu ko yàq kii daa topp ba topp jóge nangu ba nangu jóge ñu defar ndax mi ba mu baax. la ca war a nekk lépp nekk ni mu ko soj lépp ko ci bopp téye ko ni ko demal doo ko ko soj kon ku a ànd ak moom mooy déglu ma koy fekk bi ma yor de wuy juróom moom ma yor naa ñëw ci xam naa koy wax ngir ngir tal xam naa koy wax ngir dara waaye kii du dëkk naxe kii dëgg fi ne kii liñ nekk ni seen tubaab dëgg fi ndax si nga bi bu ko neexoon dem ca ca réew yi taax ya am fa kër kilim ba di dox yori oto di fa def mën na ko am na ko ndax am na ñoo bu leen ko santee ñu waaye dëgg woon addina daw addina ko bu fa nekk itam dëgmal yàlla yéen tamit seen tubaab Cheikh moo taxoon ne dëkk ci dëkk aw ñax am na doon dunde te ñàkk woowee nga xam ne way juróom ne wara daan ñàkkal seen tubaab bu daan ko dunde ñàkk woowee moo rogalaat ba muy caasam Cheikh Ahmadou Mbe Abbas ñëpp kon ki ko wuti moom doomee moom jàng du ma la tuddee woon du ma la tuddee woon comme ki ñu jàpp napp mu tudd ak baax loolu moo ko nekk rek comme dafa nekk yàlla yàlla defal seen dëkk seen bu ñu lay gërëm am na li nga ànd ak moom ak dégg ko sëñ bi déggoo yàqoon li nga dénk foofu sa diggante ak moo nekkoon ci bëgg néeg Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké nekkaloon ko ñëpp képp ku nga jógee ci ko tegu ci moom doo ko doon bokk ci doon ba làq ngërëmal sëriñ làq ngërëmal bàyyi dil si waat ci kàddu kii mooy sëriñ Mame Mor Mbacké mu Cheikh Abdou mu Cheikh Abdou borom jëf ju am wax ba mu def yàlla yoroon rek a tax ma topp nag xalifaam bii te nangul ko dëggal te jëmul yoo xamante ni ay bokk bokk yi di ko gërëm nga jàpp ko ndax bu ñu na delloo ba ca yi déglu leen ndax la ñuy wax dëgg la bu ñu la xasalee rek dëgg te bokkam yi mooy li jigéen ñu mën a ndaw ñëpp xasee dañ ko boo déggee ci rajo bi daa nga dégg ci télé bi ñu dégg ci loolu te jëf te muy jëf yàlla rek a tax jëf yàlla nag gëmul réew moom waa kër yi même ci moom yàlla bu yàlla nekk asalaamaaleykum wa rahmatulah parce que jamono bi dafa xaw a yëngu yëngu boo xam ni daanaka ñu bari bu ñu àndee pour yaakaar ne conforme dañ lay tuum moom mii jigéen ñi tey ñu fekk ko fi day kilifaam lépp xam ne waxi caaxaan la wala lépp loo xam ne jógewul gox bi kanam moom doo ko déggee doo ko déggee di ci téléphone yi di ci lu muy doxee te mosuma dégg tamit mu ne maire sama benn soxla laa saafaral man maire mooy sama sang man papaam mooy sama jaay ñun sama doom day tamit su fekkoon ni loolu wàcc bi damaa war tamit doon na fa wax waxi boppam boo ci ma ñëwee naa noppi waaye waxi loolu lay wax su lay jàppale ba bu dee ci courant bi bu dee ci koom-koom bu dee ci yeneen nit bu dee ci jàppale nit loolu lay wax. su fekkee ne dafa wax ba pare ba ñun waxuñu ci maanaam da lay seede taxawaay parce que suñu déglu bi yaa koy yabal ci ñun muy taxaw sa wóor boo ko teree woon dee ci ñoom loolu moom wóor na beneen bi tool bi bu ñun dañoo nekk diggante dënd yi ak dënn bi xam ñun dënd yi moom moo mbàkk bu dënd yi ñun suñu kër dañ nekk dañoo woon si dafa amul kër. chaque année mu koy jox ñu war dégg leen sëñ boobu daal lañ ko dajale ba juróom-benn at ci jigéen bi mooy dëkk ñu sare ànd ak teel ñu moo daw ñun déggee rek ngeen di noyyee ak xam ne bii sama yaay jox bu sëñ Amdi Xan sëñ Amdi Xan yi boobu bu jot man maa ngi ñëwaat ànd ñu ko ay mbokk ñun yaay bàyyi fan la ñun ay taalibe ñu suñu yàlla nattoo mu nekk ci réew mi euh, fekk lu baax di ànd ak a def ndax yéen ñii def seen doom yi moom du jeex moom lañ koy tànn di jeex mën nga bàyyi loolu nit ña nga ko bàyyi xel nee na moom dafay ñaan yàlla bu jeexee bu toogee ca buñ toog ba yaakaar bu gisee ay nit duñ ko toog bu may ñëw ñu ne maa ngi ànd ak chef de village Toba Koudia kilifa du ko ci caaxaan ndax maire gënu ko dugg amul lu dëkkule waaye wàccal dara jàpp boo xam ne kii kat wala ma ànd ak ma ku defar yow pour pour ñu chef de village Toba Koudia ànd ak Baye Fall doom day leer ñàkk lu dara du laaj lu dara du ci askan du ci koom-koom du ci leneen mooy sa darajaam di ci wax bu dee bëccëg parce que bu naan ko kenn maam boobu muy taw noonu la mel ci mu àndal tey jii ñu jëlee taw noonu lañ mel sëñ bi daal la lay mu ngi ñaan ak Farouk Fall mi nga xam ne moo fekk ci dëkk bi nga xam te sëñ bi rek la ci sonn ñoo ngi ñu sàkku ngeen tey démb ak tey ci la ko waxate ndax dañoo am benn ASP boo xam ne ci commune bi la bokkoon yàlla dogal maire da koo libéré woon ba xam ne ñetti fan la doon liggéey tey suba la doon loolu ndox mi ci yaxantu soo ko defee benn wàcc liggéey mais yéen ci dem tey jii boobu seen fay wala ko recevoir kii bu leen rek tey gàmmu gi moo tax am na lu teg lu bari am nañu yaakaar ñaata ko tey bu ñu jógee Bambey ñoom Baba Diarra ñoom Touba Tour financement bi am na octobre nañ ko commencé li ci des man sans àndoon ñoom ñu soog président pour mu mën a defoon financement yi yóbbu ko gaa yóbbu ko gaa waaye nee naa la nekkoon nag leer daal mooy Baba Gaara Bambey Baba Gaara tuwaatul moom financement bi am na octobre nañ ko commencé. pour kii la soxla ci lu ci war ñu ngi ñaan yàlla rek yàlla mooy tuuti ba kenn du dugg jërëjëf. waaw sëriñ bi dafa wax ni Diop mi yoroo dimbalee ndax taxawaayam rafet na des na ni muy dimbalee askan wi moom askan wee ko fi wala li ma la wax rek day dencuwaat ñun dañoo amul ñun askan ku nit mën a indi ngir askan bi boo taxawoo askan bi rek ñun lan war suñu diggante yow mooy kat rek gërëm te ñaanal kon sëriñ bi nag ñu ngi lay ñaanal ndax gis na sa taxawaay bu baax a baax a baax di la yal na yàlla suñu borom yokk say garaat yokk say ndoxay naan yokk sa xam-xam bi nga xam ne yaa ngi koy def ci doomu aadama jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatulah. nangu leen ñaan nangu leen ñaan.